bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi wa wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci GMT TV muy bàyyi fii ci jumaay Tuubaa ci liggéey yu am solo yi nga xam ne waa daayira muxaddamatul xidma ñoo koy amal ci e, jàllale xam-xam yu am solo yu wuute ci barab bii nii noonu lañ jël siwaate ci jataay yi nga xam ne ñu ngi ko jagleeloon yonent yàlla bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñëw nañ tey ci juróomeelu jataay bi ñu tàmbale woon ca aw askanam tàmbale woon ko ca seyduna ismail ñëw ba ci Abdullahi mi nga xam ne mooy waajuram ñu wax ci moom lu bari moom Abdullahi waaye wax ci Abdul Muttalib mi ko jur wax ci soxna Amina mi nga xam ne mooy waajuram mu jigéen waxoon ci gan ak jamonoom wax ci kawtéef ak i kiimtaan yi nga xam ne feeñ na bi muy gane jamono ca gën a siiw ci nettali yi ñu di ko tudd yooyu yëpp waxtaane wan nañ ko ci jataay yële jàll ñu waxoon it ci loxo yi nga xam ne moom yonent yàlla bu tedd bi jaar na ci tàmbalee ko ci waajuram bu tedd bi soxna Aminatu jaar ci ñi nga xam ne jaar na ci ñoom ñëpp ba ci suñ jotaay bu bii ñu génn ñi ngi doon wax ci nekk gi mu nekkoon ci loxo yi soxna Alimatu Saadiya nettali woon nañ histoire bi nga xam ne noonu la ko alima jële waaye it barke ak tawfiq yi nga xam ne feeñ na ci loxo yi soxna Alimatu Saadiya diiru bi nga xamee ne alxabibul Moustapha mi ngi ci loxoom sallallahu alayhi wa sallam diir boobu yépp nga xam ne yam doon lam doon yëg ci ay jafe-jafe doonte yonent bi ndaw la woon loo xam ne daa tolloon ci nàmp teewut mi ngi doon yëg loo xam ne nii mosu koo yëg ndaw lu jaar ci ay loxoom moom alimatu saadiya ëmbal ko cofeel goo xam ne sax moo raw cofeel gi mu ay doomam wala yeneen tuut tànk yi nga xam ne ñu ngi woon ci ay loxoom yaakaar naa ñu ngi ci bindub kimtaan gu réy googu nga xam ne feeñ na fa bi muy tolloog ñeenti at muy malaayika yooyu nga xam ne ñoo ñëwoon xar dan dënn bi yonent bi sallallahu alayhi wa yor ay ndab yoo xam ne ndabi ndabi wurus la waaye ndoxum sam ñu xar dënn bi am luñ ci génne raxas newaat kàpp tëj ba nga xamee ne histoire ba dem na ba siiw kon niñ ko nettali woon ci jotaay bale ba àgg ci alimatu saadiya mu laaj laajal boppam yonent bi mu nettali ko boppam na yëf ya mu xaw a tiit nag daan ne daal ku mel nii xale bu amee sens nii xale boo xam ne ñëpp am ci moom yaakaare nii xale bu tedd nii ci aw askan xale boo xam ne jig gi gim ñu jig ak yar bi ak dal gi umput kenn yàlla tawféexal moom ñëw samay loxo wax dëgg yàlla bëgguma ak ndog di di ko dal di dale samay loxo maa ngi koy delloo nag waaye nekkul lu ma gënal loolu la soxna Alimatu Saad yi daal di waxoon bi mu waxee loolu it nañ ko waxee rek booba ci li ëpp ci nettalikat yi rawatina siiratu Ibn Hisham nee na booba ku tedd ki mi ngi am ñeenti at jëm kaw jàpp juróom euh, bi mu ñëwee ci waajuram wu jigéen na Amina euh, radiyallahu taala anha ba fekk ko fa nettali xew-xew bi Aminatu defut benn réaction dafa ànd koog dal daan daal sama doom ji man xam naa ne euh, dana doon dara ëllëg ndax lii nga wax moo ci ci ci moom ne moom nga gis euh, man gis naa lu ëpp ci moom gis naa lu ëpp loolu fuuf ba wax ko ci sax yu bari yum gis waaye boobu daal daal di xam ne rek euh, lam daa gis rek lu mel noonu la soxna Alimatu Saadiya gis day mel ne foofu la bind bi yemoon ñu ciy dolli rek ne mi ngi wadd ci saxiixul euh, saxeexu al muslim Seydina Anas ibnu Malik mi ñuy dàkkantale xaadimu rasul nekkoon ci kër yonent bi diirub lim nekk ndaw ba ni yonent bi wàcc liggéey ci kanamam te aw turam dana feeñ lu bare bare bare bari ci histoire yi ñuy li dafa wax ne man Anas ibnu Malik gis naa jeexiti ay jeexit ci gis naa dëndu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma gis ay jeexit yu mel ne ay ñaw ñaw maanaam lu mel ne léegit loo xam ne nii day euh, dañoo wóor ne mooy mooy mooy mooy mooy tegtale xarug dënn ga Anas Malik wax na lu mel noonu kon bi mu dellusiwaatee ci loxo yi waajuram bu jigéen soxna Amina wax naa léegi it ne waxoon nañ ca ginnaaw ne euh, bi mu tollee diggante moom soxna Amina ci ñaari weer ci la Abdullahi wàccoon bu liggéey Abdullahi waxtaan wax naa ci moom lu yaatoo yaatoo yaatu ca bind yële weesu bindu juróomeel bi nag ci lay ci lañuy ñuy continuer suñu waxtaan ci ñeenteelu atu yonente bi sallallahu alayhi wa ba ni waajuram bu jigéen wàccab liggéey ba ñëwaat ci loxoy moom yonente bi Abdul Muttalib ak Abu Taalib daanaka waxtaan tey ci loolu lay tënku incha allahu taala euh, dafa amoon ay nijaay yonent bi wala ay ñoo xam ne ay mbokki yaayam lañ ñoo xam ne ñu nga dëkkoon ca fa ñuy wax Yasrib mooy fi ñuy wax ma Madinatul Munawwara tey euh, waajuram daa baaxoon di def at mu jot mu dem fa siyaare leen bu fa masaa dem it daana jaar ca xabru Abdullahi mi nga xam ne moo nekkoon boroom këram ziyaare xabru bi mu dem nag mu ànd ak yonent bi ak soxna su tedd soo xam ne euh, aw turam mi ngi soog di wadd nag mooy ummu ayman euh, ummu ayman waxoon naa leen ne leen euh, képp koo xam ne dafa feeñ lu baree bari ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa ci feeñ lu baree bari su ma agsee ci moom rek danaa ci yaatal wax ci loo xam ne Euh, des na mën a jariñ ci moom kon bi muy dem Yasrib Ummu Ayman la àndaloon kon dana baax ñu joxe as tënk ci soxna su tedd soosu nga xam ne euh, bariwaana luñ koy dégg ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi ca ñu bari ci ñun xamuñu lu dul Ummu Ayman ngir ne moom ab jaariya la woon boo xam ne mi ngi cosaanoo Habasa muy Éthiopie ci Afrique Euh, di nit ku ñuul moo tax euh, mu arrixuuna yi wala kutubu siira yi yu baree bari du ñu yaatal ci moom ngir ne ab doxandéem la rek boo xam ne dafa nekkoon ummu ayman jaari yëpp abdullahi la woon yonente bi moom mi ngi ko dondoo ci waajuram bu góor mu ngi tuddoon baraka bintu saalaba alxabasiya noonu moo nekkoon aw turam dëgg-dëgg bi ñuy lim ñi nga xam ne yonent bi nàmpe na ci ñoom jaar na ci seeni lox euh, boole woon nañ ci soxna Ummu man ci lenn ci ñi nga xam ne saxal nañ ko bari nañ nag ñu dàq loolu waaye ala kulli xaalin lu bari ci ndawam euh, jaar na ci loxo yi su tedd si di ay man ndax dafa nekkoon ci wetu yaayam wetu waajuram bu jigéen di ko jàppale ci bari déggoo woon ak moom di soxna su tedd ku baax ku bari yërmande euh, ku bëggoon yonent bi lool mbëggeel goo xam ne yonent bi nettali na ko ci ay wax yu baree bare bare bare mu ay man mi euh, bi yonent bi wootee sax woote lislaam ji borom xam-xam yi nee nañ bi xadija duggee ci lislaam Sidna Ali dugg ci lislaam ummu man mii moo ci topp kon ku teel dugg ci lislaam la danaa dellusiwaat ci yonent bi ak waajuram bu jigéen incha allah ummu Ayman mii it euh, gàddaayoon na ca gàddaayu njëkk ya ña gàddaayoon dem Éthiopie ca la bokkoon bi ñuy gàddaay it jógee Madina Makkatal Mukarrama jëm Madinatu Munawwara moog waa kër yonent bi ñoo àndoon Euh, ku ci mel ne soxna Aïcha ak ñeneen ci alul bayti umu euh, ayman mi am na ku ko yonent bi joxoon kuñ naan ubayd ubaydu ibnul xaaris ibnul xaaris alxasraji moo ko njëkk yore am caan moom doom ñu ñaan xale bi ñaan ayman moo waral ummu ayman daa amoon doom ji tudd ayman ñu koy wooye ummu ayman ayman moomu ubaydu ibnul xaaris alxasraji moom moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko yoroon mooy bàyyu ayman moom ma la wax léegi euh, ummu ayman miit bi nga xamee ne ubaydu faatu na ci la ko yonent bi jox zeyd zeyd ibnul xaaris nga xam ne moom it ci kër yonent bi la defee lépp moom it aw turam dana feeñ lu bari ca kanam danaa wax ci moom ci saa yu feeñee ci biir waxtaan wi ñuy waxtaan incha allah ca kanam euh, Zayd mii am naa ak moom doom am naa ak doom Ummu Ayman kooku la ñuy wax Usaama ibnu Zayd mooy xale bi bi ki gën a doon xale ki njëkk a yor drapeau ci lislaam waaw yonent daa façon daa bokkoon ci li mu yéene mooy ab xare bu amaatee Usaama lay jox drapeau bi ngir ne Zayd dafa faatu ca euh, ghazwatu Mu'ta xare ba ca toppaat Ayman faatu kon day mel ni Ummu Ayman borom këram daa faatu ci xare bi xare ba ca toppaat doomam ji mu amoon di Ayman faatu ca xare boobu mooy ghazwatu Hunayn kon moom ku bari woon i jafe-jafe la ci àdduna euh, ay nattu sax laay wax yoo xam ne yàlla moo ko ca suñu borom ab xaritam lay tegu natt euh, kon Ummu Ayman ñooñ ñoo ko yoroon kooku la amoon ci njaboot Ummu Ayman it bi fi yonent bi jugee ay weer yu néew ci la faatu boo demee sax albidaaya wa nihaaya bu Ibnu Kasir moom danaan juróomi weer lañ ci teg euh, Ummu Ayman faatu barabam ma nga ca Baqiya ak denc saxaaba yi ci madinatul munawara yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak ngërëm moom soxna ay man kon bi alimat saadiya di bi soxna amina di dem mu ngi ànd ak soxna ay man mii ñu jëm yasrib bañ demee am nañ fa ab diir lu tolloog weer bi ñuy dëpp di ñibbisi nag ba tolloog fi ñuy wax abwa al abwa mu nekk ci diggante màkka ak madinatul munawara al abwa euh, nettalikat yi nee nañ digganteem ak madinatul munawara téeméeri kilomètre la ak lu teg lu bari maanaam ñaar téeméeri kilomètre yu te yu manqué tuuti digganteem ak màkk nag ñaar téeméeri tegal na lu bari kon day mel ni ci diggante màkk ak madina la nekk ba noppi gën a jege madinatul munawara place boobu sax di Abwa euh, ca kanam tuuti dana bari lum feeñ ci suñu waxtaane ndax xare bi njëkk ci lislaam xaswatul Abwa lañ koy wax euh, Abu Sufyaan it euh, ca Fathu Makka ca boor yooyu ca côté Abwa foofu la dajeeg yonent bi fa la tuube kon barab la bu am taarix boo xam ne ca kanam a kanam a ngeen jàpp tur danañ ci waxaat lu bari incha allah ndeysaan soxna Aminatu bi muy tollook ab waa la ko sibbiru soo xam ne tawat ju gaaw dikkal ko ju bette lool yoo xam ne tawat ji bi muy dikk lépp téewul mi ngi ànd ak sagoom jël loxo bi teg ko ci boppub doomam ji di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju yonent bi mi ngi am juróom benni at waaye li tawat ji di metti lépp ak li muy ne ci nga xam ne njortlu na bu baax a baax a baax ne tawat jii du ci mucc ci lay doxe wuy ji boroomam teewut xel mi yépp mu ngi ci doom ci waaw foofu sax way na fa ay way yu bari xasida goo xam ne ñu ngi ko koy askanale goo xam ne yonent bi la ko wax boo xam ne la ko doon ñaanal wax na ba ca biir ne sama gént gi bu ma naxut yow yaay nekk yonent yàlla bu mujj bi wax na ko ca xasida ga foofu ci abwa fala soxna su tedd sii nga xam ne mooy waajuru yonent bi wàcceb liggéey fala faatoo ñu denc ko foofu foofu la barabam nekk ci abwa googu ma la wax ne la mu ngi ci diggante màkk ak Medinatu Munawwara kon day mel ne waajuru mu góor li jiitu muy gën jamono ba ko waajuru mu jigéen tolleeb diggante ci ñaari weer ci la waajur mu góor wàccub liggéey nii ma la ko nettalee ci juróom-benneelu at bi nii ci abwa wala soxna su baax sii nga xam ne euh, wax nañ ci moom lu baree baree bare bari kon day mel ni fii la ab liggéeyam yam fii ci àdduna mooy bi yonent bi amee juróom-benni at ci abwa foofa la faatoo moom soxna aminatu bintu bi bi nga xamee ne siwaat nañ ca màkkatal mukarrama ki nga xam ne moo jël nag yonent bi nag jël engagement ci yar bi ak ci lépp lu muy soxlawoo mooy maamam ja nga xam ne ba mu ganee jamono moo ko tuddee Muhammadu mooy Abdul Muttalib te suñ waxtaan yu njëkk yi moom it jagleeloon naa ko waxtaan wax ci moom kan mooy Abdul Muttalib cosaanam ak léppam Abdul Mutalib li mu doon njaboote lépp nekkoon sayidu Xurays ki mu gënoon a bëgg ci kaw suuf mooy sëtam bii ñuy wax Muhammadu kon bi waajuram bu jigéen wàccib liggéey ci ay loxoom la dellusiwaat moom Abdul Mutalib euh, mu bëggoon ko lool Abdul Mutalib nee nañ bu masaa toog ca pénc ma ca màkk ca kippaaru Kaaba ga mbooleem xabaayil yi nga xam ne dañoo bokk ci bannu Hashim ak arab yi dañ koy wër warmaaloon nañ ko war ma joo xam ne daawuñu toog ak moom ci kaw waaye nee nañ bu masaa toog day jël Muhammadu teg ko ci peggam mu toog moom ci kaw wala mu jël ko teg ko ci kawam di jël loxo bi di ko raay ci bopp bi buy xéewalu buy lekk lu lekk mukk ca Muhammadu ñëwut kasaalika it lépp lu ñuy def ci lu baax luñ baaxoo def rek su taxawee ba mbooloo mi taxaw sëtam boobu di Muhammadu ne day ne ci wetam kon day mel ne loxo yi yépp la jaar Abdul Muttalib moomu nag Abdullahi Abdul moomu nag moo nekkoon Sayyidu Xurays ci ay loxoom la nekkoon euh, kon day mel ne nee naa léegi bi mu amee ñeenti at ci la dellusi ci soxna Amina bi mu amee juróom benni at ci la soxna Amina wàccu liggéey ba mu dellu siwaatee juróom benni at juróom ñaari at juróom ñetteel bi at ci la Abdul Muttalib wàccu liggéey Abdul Muttalib it bi mu wàccu liggéey bi mu faatu dénkaane bi gën a fës bi mu dénkaane woon mooy sëtam bii di Muhammadu moom la dénkaane woon sallallahu xool ki nga xam ne moom la gën a am yaakaar ci ginnaawam muy Abu Taalib mi nga xam ne mook Abdullahi ñoo bokk lépp moom la ko dénk wax ko ci moom wax ju nag ci ne na ko fonkal Muhammadu mi am na sax ci nettalikat yi ñu naan sabab bi tax soxna Amina dellusi ba mu demee Yasrib yàggu fa def fa weer rek gaaw dëppaat nenañ nañ yi ci boppam ñoom ñoo muntoon a muñ jëmmi yonent bi fu ñu ko gisee rek di ko seetaan ak di wax ci moom wax yu rëy rëy rëy ba nit ñi naan ko demal delloo ci sa doom ji yow mi am na ci nettalikat yi ñuy wax loolu ñu ne daal yahud yi ñoom ñooy bu ñee jàkk jëmm ji rek ak lim doon am juróom-benn at yëpp di gis ay alaamaat nubuwa ci xar kanam bi di wax rek di jàkkaarloo jëmm ji di wax rek kii mooy nabiyul umma kii mooy yonent bi mujj kii mooy nabiyul nangam di wax rek wax ju bari joo xam ne dañoo mujjoon sax wax soxna Amina ne ko yow daal faw nga delluwaat ndax booba euh, kàngam yi nga xam ne ñooy kàngam yahud yi nga xam ne ñoom euh, ñoo yoroon lu bari ci kutubu samawiya yi nga xam ne moo wàccoon ci yonent yi ñoom ñoo ko yoroon bari woon xam-xam loolu nag nee nañ wax ju bari jooju moo taxoon loolu ku ci mel ne Ibnu Kasir ci al bidaayatu wa nihaaya waddan na ci wax ju mel nii waaye lu man di xew rek mooy lu mat weer la fa def dellusiwaat loolu mooy xew-xew bi nga xam ne mooy bu mag bi nga xam ne moom lañ doon junj ca suñu jataay bële léegi nag yonent bi kon mu ngi ci loxo yi Abu Taalib mi nga xam ne mooy bàyyi Sidna Ali kooku nag euh, mboolem loxo yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar na ci yépp kii mooy ki ci gën a yàgg kum gën a yàgg ci loxoom ki ci gën a yaatule histoire ndax ci loxo yi Abu Taalib mi ci la nekk ba ni denc soxna Xadija mi ngi ci loxoy Abu Taalib ba niñ ko joxe nubuwa gi mi ngi ci loxoy Abu Taalib ba ni Abu Taalib ni mu liggéey lu baree baree baree baree bari ci waxambaaneem lu baree baree baree bari ci bi denc soxna lu baree baree bari ci njabootam lu baree bari ci nubuwa gi ak lu baree bari ci njëlbeenu jafe-jafe lislaam yi mu ngi fekkoon mu nekk ci loxo yi Abu Taalib loolu moo tax diggante ak Abu Taalib faaw dañ koy jagleel ab waxtaan boo xam ne nii waxtaanu boppam lay doon ci jataay yi ñu jëm ñoo ngi jeglu mbokk yëpp di sant bu baax a baax a baax euh, waa daaira muqaddamatul xidma rawatina Serigne Abdou Qadir Bousso bi nga xam ne mooy taxaw jataay yëpp yépp ñu ngi sant mbokk yi di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu والإمام إمام المرسلين والأنبياء يقيهم في الجوى الغمما يوم القيامة تاتي الرسل قاطبة والأنبياء